Ahmed Cissé bis ni ki na ko ba tax na lii moom nañu sori bàyyi sax Thiès Thiès sax bàyyi waale ko Thiès bàyyi sax Thiès di leen ñaan daal lii di couleur orange bi képp ku mu jege na ko sànni mu sori la mbir soo ci nekkee ñu di la ci dégg ba nga dem ba di ci génn dafa laaj nga wax ak ñi ko séqaloon bi ci njëkk bi may njëkkee maam lu ñu bari umpale muy suma diggante ak Idrissa Seck daa am lu ko ci bëgg leeral ndax Idrissa Seck képp ku ko xam képp ku ko xamoon xamoon nañ ni Idrissa Seck ak Touba def defuñu nen ñun ak ñi may àndal ñu am initiative xelal ko ko pour mu jóg ñëw dox digganteem ak waa Touba ñun ñu jiite ko mu ñëw fii ci Touba ñëw sama kër nekk ko 10 jours loolu du lu may sos yéen ñi toog fii ñu bari yéen a ngi ci woon ànd ak moom ci luñ doon dox réconciliation bi am digganteem ak waa Touba ak kilifa yu bari ci dëkk bi ñu di ko dox guddi bara taxal ci lu baree baree bari ba tax nekkinam mën a neex ci biir Touba gi ñu dëkk ma am lu ma ci yokk ci ay wax yu mu wax ba tudd ni Ablaye Wade dafa yëngal aras ma di leen wax ni moom moom bu fekkente ni Ablaye Wade dafa yëngal aras moom dafa màbbu aras dafa màbbu aras ndax bu mënee toog secrétariat national bi yëpp wër ko mu ni Mouhamed Cissé moo dem ci sëñ Moussa Nawel di wax lu ko ënd ci këram waatal naa leen Serigne Touba mi ma gëm yaakaar ko waxul dëgg waxul dëgg sëñ Moussa Idrissa tax ma xam ko ñii ay taalibeem mën nañ ci mën nañ ci seede njabootam ñi ci dëkk bi ma mën nañ ci seede musuma faa dem Idrissa Seck moo tax ma xamanteeg moom kon moom buy jiiñee Ablaye Wade yëngal aras moom dafa rajaxe aras senegal nag sénégalais sax laay wax dox moom fii ak deful taati neen rek ñu ne dox na. wax nga daal di waaye waa ju gàtt jooju wax ji muy wax fan yi ku ko dégg xam ne kii àndatul ak sago. na bu yàgg. ay yëfu dox rek lay def ba tax na loolu mënu ko woon a ñàkk bañ a leeral pour nit ñi xam beneen bi ci topp yéen ñëpp dégg ngeen ko fan yii mu wax wax ju rëy. loolu nag dañ ci interpellé président Macky Sall parce que bu mënee toog di wax ni moom bu fekkoon moo nekk place président Macky Sall ku mu bëgg a rey ci réew mi rey la ah loolu sénégalais war nañu ubbiwaat seen bët loolu dafay dafay laaj ñu interpellé kon liñ ko doon jiiñ ci histoire Khadim buso dañuy ñaan dossier boobu ñu ubbi ko ndax moo ko wax moo toog publiquement sénégalais yépp di ko seetaan mu ni place Macky Sall bu fa nekkoon Ousmane Sonko li mu bëgg ci moom dina ko def ñun nag ñu ngi ñaan procureur ci boppam loolu mu jóg taxaw ci ndax bëgguñu soxlawuñu état boo xam ni boo ko neexul mu rey la te comme moom daa bokk ci ñuy wut réew mi loolu sénégalais yi dañ koo war a xam ba mu leer di wax nag Idriss Seck nit la koo xam ni ku goree de ndax kenn ku ci nekk ci yéen ñi toog fii xam ngeen ñun li ñu daj ci Idrissa Seck ci diggante Bakka ak Makka muy toj toj yooyu mu fi waxoon suñu mbokk mere ñu ci suñuy xarit mere ñu ci suñuy am di jàmm mere ñu ci man sama yaay bi ma jur taxaw naa man ni ma seen kii ngeen topp de du waaja ndax nit day xam teraanga ndax moom nee na mënut a comprendre nit nekk ci kër fukki fan waa koñ bépp dagg ñëw ñëpp di la toppatoo ba sa jibi jox nga wod leen loxoy kese dem sa yoon Sénégal teraanga la xam Sénégal réewu teraanga ca bi ma yàlla boolee ak moom ba tey bi ma di ko bàyyi alhamdulilahi rabil alamin musuñoo tegoo centime bi gën a tuuti centime tey suñ ko tegoo woon su ma waxee dana am ñu ma wet moom nag dégg naa ko muy toog ni dafa am xaalis ba ni li muy gañe mën naa fay ay salaire ay ministre waaye ma ni ku am boobu xaalis soxlawu ay 1 million ci 2 million te ñun xam nañ ci dara ci 2019 bi parce que bari na lu doon dugub jaar ci suñu loxo na bàyyi caaxaanam yii yorul dara ñun dofuñu yéen gis ngeen ko Idrissa Seck bi muy ñëw fii ci Touba oto Déthié Fall la yor oto Déthié Fall biñ ko jox ci assemblée nationale bi yéen ñëpp gisoon ngeen pasa pasero bu noir bi mu yoroon Mitsubishi bi oto Déthié Fall loolu lépp ñun ñu camouflé ko di doxaale moom ba kenn xamu ko kon bu jógee taxaw sénégalais yépp toog muy xas waa Touba ba egg ci ni waa Guédé dañoo réew ah juum na nag mais li may wax rek dox nit sénégalais xamuñu ko dox ku def taatu neen lañ xam li ko waa Guédé lebal bu mënee taxaw sénégalais yëpp wër ko mu naan waa Guédé dañoo réew di xas waa Touba loolu moom dama leen koy bàyyee yéen waa Touba mu nekk seen combat bopp. parce que nag ñun lu coow li bari bari fii lañuy ñuy fii lañuy ñuy safoo bu demee ba Ndakaaru di ñu xas on verra ñoo ngi koy déclarer guerre nag Idrissa jàpp jàppale ko fii 2024 ah du yomb de. képp ku ko bëgg de di nga daje ñun ci terrain bi te lu ñu ci bañul rek bañuñu ko ci ba idi du fi am dara bépp kilifa diine bu ñu demoon ci yow wax la waxi Idrissa Seck dinañ solaat suñu dal jël suñu tànk ñëwaat ba ci yow wax la kii mooy kan loolu décidé nañ ko ca dinañ ko def reewale googu mu ñuy jiñ nag ci doomam la nekk yéen ñëpp yéen journaliste yi doyen gisal ngeen ko seen bopp doomam ñëw na fii ci Touba kër sëriñ bu mu dugg buñ ne ko sumil sa dàll yeeg sa casquette bi mu sànni gaa yi loxo tatouage yaram bi yëpp ñun suñu yaram a ngi nii mën nañ ko tàllal benn tatouage nekk ñun ay taalibe sëriñ Touba lañu kon buy wër ku réew na ko wër biir këram ñun président Macky Sall mi ñu tudd di tudd sa Seck ñun bu ñu tuddee Macky Sall sa Seck musuñoo seqal moom dara moom moo toog ba ci yàgg xëy genn ngoon ni waxtaane na fukki weer ak juróom digganteem ak Macky Sall waaye man doonu borkat foofu la mën a yem yow nit ñi boole li ñu li leen neex ak li leen naqari jël li ñu am lépp sacrifié ko ci yow di xeex ak nit ndekete ki ñuy xeexal bu ñu bu ñu xëyee di xeex ak moom bu guddee nga fanaanee waxtaan ak moom mais kii mooy baadoo la kuy wër baadoola rek boo gisee waa ji jàppal loolu nag dafa bokkul ci jikkoy gor man nag maa ngi jégalu ñëpp bépp nit boo xamante ni Mouhamed se moo taxoon ngay wax waxi sa Seck wala ngay dox di jëm ci lu sa sekk nekk maa ngi lay jégalu maa ngi lay baalu àq ñun nag département Mbacké moo ñu ñor ay hommes politiques lañu bàyyiwuñ te dañuy politique. Idrissa sa ak lu xeetoog moom lañu ñu bàyyi waaye bàyyiwuñ politique képp koo xam ne xool nañu ni parce que nag ñun bala ngay laax jaay da ngay laax lekk ñi fi nekk di wut na ko sëñ Fallou waxe woon rek ku ci tuubaa ñor daal ak département Mbacké yow la ñu dara tënk ba ma xàmmee ba tey musuma gañe marché état musuma téye dërëmu état musuma séq ak état dara loolu dafa jot ma leeral ko Yankhoba Diattara bi nga xam ne ministre la woon doon sama xarit benn yoon laa mas a taxaw ministère sa Seck nekk na fi ba jóge fi ñaari yoon laa mas a taxaw ci ses bi benn bu ci nekk moo ma woo ni ma dama laa soxla ma dem toog mu wax beneen bi ñun ñi ñëpp ñoo àndoon ñu toog fi ñëpp ñu ngi woon ci délégation bi kon man bu ñëpp meloon ni man loolee ñu ko jox dina ci wéet ndax man mosuma ko cee xatal mosuma cee soxla ñàdd la maa ngi liggéey di sant Serigne Touba li ma am mu néew mu bari maa ngi koy bokk taalibe Serigne Touba te ci loolu laa fas yéenee nekk ba ba may dugg ci biir suuf ma ba may bàyyi politique ba may dugg ci biir suuf liggéeyu ma lu may denc man lu ma am dama koy fas yéene bokk sama bokk taalibe yi yéen journaliste yi fi taxaw nag ah euh, doyen avec tout respect que je vous donne wax dëgg yàlla loolu moom sama yoon ko ci comme Idrissa Seck bàyyi naa ko tappale yu man di nekk na ko wéetoo bañ duggee ci nguur gi loolu laa leen waxoon dama ni leen lawtan jii du law ba téq ma ndax soxluwuma ci dara ci du ma ci jege du ci laal yàlla dimbale na ma ci wax boobu ba fii ma toog di wax noonu la demee alhamdulilah waaye nag comme li may wax rek maa ngi ñaan daal képp ku dëkk ci Touba ci département Mbacké fépp foo dégg nit di wax waxi Idrissa Seck waxuma la moom idi ka koy wax xottil gàttam ca xam ni baaxul ci département bi département bi nit ñu sérieux lañ fi bëgg mais bëgguñu fi ay warkat te booleen leen xoolee tey li xew fii xam ngeen ni lii mooy parti réew mi leneen loo leen fi gis bojo bojo la mooy parti réew mi commune yi commune yi incha bu ñu jógee fii parce man bari nañu dugg ci parti réew mi ñoo xamante ni ci ay commune ak département yu fasanti ko suñu combat dès demain day commencé fépp fu ñu war a teg suñu tànk ci territoire lu Sénégal bi dinañ ko fa teg li ñuy njëkkee tournée communale ci biir commune bi tournée départementale tournée régionale tournée nationale fépp fu waa ji teg tànkam bu yëkkatee ñu teg suñu bos lu mu ko laxas ñu laqarti ko ba mu set ni leen lu mu leen wax du dëgg. dafa ndaje fii moom ku ko fi bëgg a wutal dara noo am nga problème loolu ñun ak yéen ñoo fi bokk nekk lii première étape la deuxième étape baa ngi ñëw mais fii mooy waxe ak yow ànduñu kenn tout sauf Idy tout sauf Idy Idy daal na sénégalais xam kii mooy kan non pas mouvement mais li ñu jóg nii di ci dox pour le moment ah mais li ñuy euh, laxas nii dina am kuñ ko sottil li ñuy liggéey dina am kuñ ko sottil waaw non yéen yéen ngi fi woon ay législatif jaaru fi bërki dem ah ku parti réew man maay patron parti fii ci département Mbacké ca bàyyi naa leen fii ak deux dootu leen déggati parti réew mi ñi ngeen di tudd dama tudd du ma ñoom du ma seen morom yaa ngi dégg te yéen li may wax nii wallaahi mat ngeen ci seede parti mi mi ngi fi woon ngeen nekk fi avant may ñëw parti mi mi ngi fi ñu nekk fi bi ma ñëwee gis ngeen lan moo ci soppeeku dama ne fii lu ngeen fi dégg lu ñuy identifier parti mi ci man la keneen ku fi nekk kenn biir biir Sénégal waa situation Sénégal moom ku ne xam na ni ay jafe-jafe am na fi loolu moom nit mënu ko werante mais jafe-jafe yi adduna bi yépp la loolu il ñi nit ñi xam ni jafe-jafe yi am adduna bi la dañu jóge ci mbas mu metti jóge ci mbas mi benn guerre déclenché wu bu nga xamante ni ku ne xam na dëkk yooyu ban njariñ ak benn ban impact lañ doon def ci àdduna bi yëpp loolu nag ku ko bëgg a jiiñ nit rek mooy naafeq dugg na ñun moom li coow li bari bari nii la ñu def nit du tax ñu wax luñ gëmut nit du tax ñu wax luñ xamut voilà gis nga Mouhamed Cissé ab sénégalais juddoo ci réew mi jànge ci réew mi màgge ci réew mi tekkee ci réew mi gis nga senegal gii Macky Sall mii ko yor gënuma ko bëgg lépp lu fiy njariñ fu mu nekk jëme ci dap jiital ci département Mbacké Mohamed Cissé kooku lay àndal non déggoo li ma la waxuma waxaguñ ay Macky Sall keneen dama ni intérêt wu Sénégal jiital ka sama bopp man bu doon sama bopp rek moo ma tax a jóg wallaahi du ma politique mais dafa am lu ma bëgg te mënalu ma ko sama bopp moo ma dugal ci politique mais réew mi laa jiital ci lépp fépp fu intérêt réew mi nekk foofu laa nekk léegi nag mu am benn message bu nga xam ne dama koy lancé sama frère yi nga xam ni ñoo des ci biir parti réew mi di leen wax ni italiens yi daa am lu ñuy wax mooy soñaare noo kosta ñeente toog di gént doo ci fay dara di leen wax ni nañ daw ca ba ñuy ami tànk parce que humiliation bi ma seen muy ñëw ñoom yéene wu leen mu fekk leen fa tàllal loxo képp bépp ndaw responsable bu nekk ci parti réew mi rek maa ngi lay tàllal loxo nga xam ni jiitalal Sénégal te bul jiital leneen nit kuy dox ci intérêt kenn du ko topp que ñoom ñu xoolaat bu baax li ñuy def que waa ji du waa ji ñu ñëw ci loxo bi ñu leen di tàllal ñu bokk toog waxtaan li gën réew mi fi gën réew mi ñu ànd jëm fa maa ngi leen di tàllal loxo bu baax a baax ca loolu wax boobu ñu dégloo ko xel ca bañ koo dégloo xol di leen wax nag ni il faut ñu sant suñu frère yi yi nga xam ne ñoom lañ ci nekkal loolu ñi ciy jiital mooy waa monde rural bi monsieur le maire Seydou Sarr adjoint maire de Tipe ak Cheikhouna bi nga xamante ni lépp lu ñu ma a def ci parti réew mi ci monde rural bi moom moo ko doon coordonné ak nawleem yi mu àndal ñu bokk gis-gis ba taxaw pour démissionner ci parti réew mi loolu mooy montre yu baax yi ñoo bokk heure mais frères di leen wax ni confiance bi ngeen am ci man jamais au grand jamais ma décevoir leen du ma dugg mukk mukk lu ñu waxtaanewul ba déggoo ko kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant suma frère yi nga xamante nii lu ne dégg nañ ko ndax suma jëmm maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax parce que am na ci ñoo xam ne comme ni ko Sall waxee def nañ ay 15 ans de plus ci parti bi nootu doyen Mbaye Touré ci doyen yi gën a yàgg ci parti bi ci la bokk bu ñu demee ba mën a bokk gis-gis mën a ànd xam nañu Mohamed jiitalul intérêt ci dara ak jigéen ñi nga xam ni ñu ci bari ak ndaw ñi toog man maa tax ñu dugg ci politique bañ nañ ko ba bu ñuy wax li ñu lay wax mooy grand ñun xamuñu Idrissa Seck xamuñu Macky Sall. xamuñu kenn ñun yow lañ xam koo àndal moom lañ àndal loolu nag yan bu dées la te chaque jour dama koy sóoraale ba duma bëgg a fakkastalu ci yan boobu di wax ne nag incha allah coordinateur monde rural bi moom ñëpp ñi ci ëpp ñëw nañ ñi ñëwul tamit jox nañ ñu seen kàddu kenn décision bii ñu jël ànd nañ ci ak ñun waaye ñun ñoo doon tudd turu nit fu mu nekkul mais ñoom ñi ci ëpp woo nañ ma téléphone ni ma jox nañ la suñu kàddu ci lii nga nekk di ko dox ndax xam nañ ni département bi moo la ñor. huit la huit mais fii ñu toog huit coordinateurs teew nañ fi commune am. Ah, fii parti réew mi moo ñu fi indi woon. Ah, loolu kay leer na mais du leneen parti réew mi ñu fi indi woon nag lañ leen bëgg a leeral ni. tàqali na nañoo ñoom ab yóbbal dem nañ ñu dem. di sant mbooloo mi yëpp di leen gërëm di leen jégalu di leen baalu a dara ngeen jëf